aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa barakaatu mbokk yi jàkkaarloo ñun te di ñu seetaan ñoo ngi amati mbégte mu yaatu di ñaanal xalifa général kulu murit Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool ca ànd ak wér di ñaanal sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbàkke mi ñuy xoole jëmmi Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim yàlla dëgëral koog mbooleem njaboot ak Cheikh Moustapha gépp noonu itam lañ ko ñaanale jàmbaari sëriñ Daaru Xasan ji nekk fii ci Daaru Njaay di sëriñ Abdul Xaadir Njaay kenn ku ne xam na ni sëriñ Abdul Xaadir day bi mu toogee toogaayub sëriñ Daaru Xasan ak léegi kenn gisut lu mu bëgg lu may taxawaay bi mu war mu taxaw ko ci njaboot ak sëriñ Daaru Xasan gépp waaye lépp lu fi mag ñi bàyyi woon di naal mu àggale ko waaye tam lu ñu fi bàyyi woon ci ay samp mu rokkas ko yàlla na ko yàlla kàttanal ak mbooleem ay jëwriñeen ak mbooleem taalibe yépp ñoo ngi ci wàccaayu bis bu am solo bi nga xam ni moom lañuy fàttaliku at mu jot jàmbaari seexul xadim jooj di sëriñ daaru asan njaboot gépp di ko fàttandikoo ndoo muy benn bés ba tax na nag commission bi nga xamante ni mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu communication ci biir kër sëñ Darou ànd commission culturelle ak mbooleem commission yi aju ci biir kër gi yëpp ngir ñuy waxtaane ay jotaay yoo xam ni dañuy xamle jàmbaar yooyu nga xamante ni moo di sëriñ Darou Assane moo tax ñu toog kenn ci kilifa yi ci jëwriñ yi nga xamante ni seen taxawaay ci kër gi macha allah mat na mu di sëriñ Modou Ndiaye. moom sëriñ Moustapha Ndiaye moom sëriñ Mour njaay Assane ku ko dégg rekk xam ne léppam kër sëriñ Daaru Assane la sëriñ bi dana jox kàddu nga nuyoo su ko defee nag ñu ñëw ci tomb yi nga xamante ni namm nañ ko waxtaane ci jëmm ju tedd ji di sëriñ Daaru Assane bisimilah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi alladi malaa quluba awliyaihi bi nuuri mahabbati wa dayyana arwaaxahum bi shuhuudi azamati fa kaanu li axkaamihi mustaslimiin wa li awaamirihi muzciniin wasalaatu wasalaamu al atimmaani ala nabiyina muhammad wa ala wa ashaabihi ajmaciin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa uh, ñu ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu mboolem mbokki taalibe ak fu ñu mën a seetaane ci àddina bi. moo xam ci biir réew la wala ci bitim réew mi euh, di am mbégte bu baax ci ànd ak yéen liggéey bu tedd bi nga xam ne. Mhm. fan yii yëpp ñu ngi leen di topp te jamono bi yëpp ñu ngi gis ne yéen a ngi nekk ci liggéey bi. Mhm. di leen ci sant di leen ci gërëm xam naa ba ngeen ñëwaat rek incha allah ci question yi. jërëjëf Serigne Modou. mel na ni nuyoo bi matale na ci tënku na. waaye suñ dee waxtaanee Serigne Darou Assane dañuy dogal ngànt suñu bopp ni waxtaanee wuñ Serigne Darou ngir yëkkati ko. ndax yëkkatiku na ba pare sëriñ tubaa ma léppal ca woote bu njëkk ba ca mbàkke kajoor laa àndoon ak sëriñ tubaa génnut sëriñ tubaa benn yoon kon wax waxtaanewuñ ko ngir yëkkati ko dañuy waxtaan euh, ay jikkoom ak i jaar-jaaram ngir ndaw ñi man cee roye mag ñi itam man cee fàttalikoo looloo sabab jotaay yi ñuy defal sëriñ Daaru Asan ñu tam euh, ñu jël ci benn tomb boo xamante ni wala ay tomb yu am solo muy ñaar benn bi muy sëriñ daaru asan ak xam-xam ca sëriñ tubaa waxoon ni al ilmu imaamul amal wal amalu taabihu fa kullu amilin bi laa ilmin yura fa sëyoo mislaha bàyyi nusira lan nga ñuy wax tënkal ko ci sëriñ daaru asan njaay ak xam-xam ak ni mu ko doon dundale jërëjëf sëñ Moussa euh, euh, da nga mel ne da nga posé question bu bu bu am solo ndax dañu toll ci jamono xam-xam bi ñu tolloo ci jamono xam-xam kenn ku nekk kilifa gu nekk njabootam war nañ xam war na xam kilifa googu naka la jàppee woon xam-xam. Mm-hmm. Euh, sëñ Daaru bokkoon ci ñi gënoon fonk xam-xam mën nañu wax ne ci yoonu murit. Mm-hmm. ndax d'ailleurs loolu moo ko xamaleeg sëriñ bi. Euh, ci cosaanam ci njëlbeenam rek dafa jóg def comme ni fi fi doomi soxna yëpp di jaar. Mm-hmm. muy jàng alquran fi nga xam ne ci ne fa ba yàlla dogal mu mu mokkal ko. bim ko mokkalee mu liñ naan mu samp njëwam. samp mhm. një mooy laxas. laxas ndax jàng na xam jàng na alxuraan ci dëkk dëkk ci dëkk dëkk bi mu ganee àddina ak bi ko jege ñu doon wax ngay saa yoro mhm. fa la ko mokkale fa la tàmbalee njàngum xam xam mhm. bi mu paree foofu ci njàngum xam-xam. comme euh, mag ñi ni ñu baaxoon ci jamono bu ne jamono boobu. dëkk bi nga nekk saa yoo jàngee ba njàngale lañ xam. bu fekkee da ngaa bëgg yokk sa xam-xam da ngay génn dëkk boobu dem ci beneen dëkk. loolu nag sëñ Diarra Fane loolu la def yàlla dogaloon mu am benn nijaay boo xam ne ku ne xamoon na ko ci xam-xam. Mhm. ku ne xamoon ko it ci làmmiñ wu leer waaye ku ne xamoon ko ci mën a jàngale. Mhm. muy sëñ Mouhamad Kan euh, mu nekkoon mu nekkoon ndar ndar ku ne xam ne ne ci jamono jamono boobu ba fii ñu waxee ak yow sax dëkku xam-xam la. Mhm. madinatu ilmin la dëkku xam-xam. Euh, yàlla dogal mu dem fa ba mu fa demee nekk fa nekk ci nijaayam jooju dafa jàng. ba yàlla do la yàlla dogal mu am ko foofu ci xam-xam mu am ko. Mm-hmm. waaye taxut rek mu doyal ci ci ci ci gëstu xam-xam. Mm-hmm. Euh, ci la dégg nag ci la dégg daara ji nga xam ne si ne Maamoor Anta Sali moom la moom la amoon Mbàkke Kajoor nga xam ne ma des na ko tuddee ruxlatul ulama. Mm-hmm. ruxlatul ulama bi ñu ko waxee mooy foo xam ne boroom xam-xam yi buñ jàngee ba xaw a jeexal. fa la ñuy dem pour àggale ji seen xam seenu seenum njàng. dëgg ngir na lan ngir na daara ja loo la joo xam ne la fa daje ci ay xeetu xam-xam bari na lool. Mhm. Eh, Serigne Darou Assane ci la def noonu jóge Ndar dem Mbacke Kajoor. bi mu fa mhm. demee yàlla dogal mu nekk fa jàng fa ba jàng la mu war a xam. Mhm. Eh, waaye fokk fonk gi mu fonkoon xam-xam yëmulewu ko rek ci boppam ba ci ak njabootam sax dafa tax eh, maanaam dafa taxawoon bu baax ci di leen jàngal ak di leen yar. di leen jàngal di leen bépp dëkk boo xam ne mas na koo sos. am njàng la koy sose maanaam am am njàng la koy sose euh, gone ya fa nekk di jàng hmm. boole ko boole ko ak ak di liggéey kasaalik noonu la fonke woon xam-xam ba euh, sëñ moo duggee bu parcelle daf may nettali ne ma hmm. ci ay jamono am na ci ay goneem yoo xam ne euh, dañ leen da leen masoon a yóbbu ci sëñ maage yi yàlla dogal nag xëy na nanguñ faa toog waaye fonk fonk xam-xam dafa tax dafa àgg ci wax sëñ maage yi bu fekkente ne gone yi seen waajuru jigéen yi nekk ci sama kër gi ñoo tax nangu ñoo toog ci sa daara ji dama leen di yeewi dencal la ko ngir ñu mën a toog foofu jàng li ñu war a jàng kon kooku ku fonkoon xam-xam la ku bëggoon xam-xam la mais ku mm-hmm. xam-xam jaraloon la ku xamoon xam-xam lan lay lan lan lay jëriñ ak lan lay représenté la mm-hmm. voilà kon xam naa dañ yemani doon rek ba waaw macha allah mm-hmm. euh, yaakaar naa loolu moom ci bëgg xam-xam dayo bu tol noonu ñu ngi koy soog a dégg ci nit ku bëgg xam-xam noonu ak teg xam-xam palaasam ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa waxoon ni sàkku ji leen xam-xam donte da ngeen dem ba siin yaakaar naa sëriñ Daaru Asan déggoon na xaddis boobu ndax wax nga ni ci ëttu yi maamam ca la jóge laxas fu mu jàng ba jeexal téere yëf ñoo ko mën a jàngal jeex mu jàll feneen ba ñëw Mbàkke Kajoor ci université mag boobu nga xamante ni mooy université Mamour Anta Sali boobu tase fa ki nga xam ni mooy xetti laa konu jamono di Cheikhul Khadim Khadim Rasoul su ñëwee suñ ñaareelu tomb muy jëmm ju tedd jooj di sëñ Daaru Asan euh, digganteem bi mu nag jàngalee ba jàng ba pare ba yar ak njabootam ba pare xanaa kay du ñàkk ni am na ay dëkk yoo xamante ni dana topp ay waajuram ak ki maamam sanc ko ngir man faa ñoŋal diineem man fa itam sàmm ak njabootam ndax mën nga ñu dikkal ci dëkk yooyu ak dëkk bu ne ba mu ko sañcee lan moo nekk taxawaay dëkk ba suñ jamonoy tey ji mhm. ok jërëjëf euh, beneen question bu amati solo sëñ Darou Assane moom it yoon woowu daf cee jaar yoon wi ci sëriñ bi jaar mhm. mooy bi bi nga xam ne nekk na kër sëriñ bi ba suñ borom dogal ñu wàccee ko euh, fekk boobu it euh, àgg na fi mu war a àgg ci xam-xam mhm. mais àgg na fi mu war a àgg it ci mën a defare àgg na fi mu war a àgg ci mën a àggale nit ñi ci seen borom kon nag day waar bu boobaa bu fekkente ne loolu yëpp def na ko bu boobaa it comme nañ ko baaxoo xamee rek ci courant. Mhm. dangay gis ne day bari ay central dëgg la mais central yëpp dafa am fu ñuy jokk. fu ñuy jokk voilà léegi central bu nekk it. Mhm. secteur ba nga nekk yow yaa koy alimenté. wallaahi sëñ Diarra Assane noonu la def mooy bi mu bi bi suñ borom dogalee mu wàcc mu wàcc. Mhm. bu wàccee dafa dellu njàmbur ci ay mbokkam. ba mu demee nekk ci ay mbokkam di woote ak suñ borom defal ko taw feexe nag mbooloo mi wuy si ko lool. ba mu dem ba daanaka mën nañu wax ne xajatut njare seer ga nga xam ne fa la bàyyeekoo woon dem jàngi. ndeysaan. Euh, ginnaaw daawul def dara ci lu dul sëñ bi. Mhm. mu sàkku ci sëriñ bu mag bi ne ko kat dafa bëggoon a wut fu gën a yaatu fi mu nekk. Mhm. ndax ku ne xam ne na defar euh, maanaam day laaj nga xaw a beru tuuti. yow ak sa njaboot xawa a wéet tuuti yow ak njaboot. Mhm. ndax bu fekkente ne da nga nekk ci biir ay nit amaana. Hmm. Euh, li nga bëgg a def sa njaboot loolu mën na mën na xaw a jafe. dëgg euh, mu jël ci mu comme ni ñu ko waxee rek mu jël woonu sëriñ bi ci wàllu defar ak ci wàllu wàllu sanc ay dëkk ginnaaw bu mu diisoog sëriñ bi ba sëriñ bi jox ko ndigal ndigalul ci dëkk ci la dem sanc ci dëkkam bu njëkk bu tudd Daaru Salaam. Daaru Salaam Daaru Salaam bu ñu ko waxee moom lañu tuddee Daaru Njaay Njàmbur ci jamono bi ba léegi am na suñ am na suñ ay mbokk yu fa nekk mën nañu wax ne ay setti sëñ Jaar Wasal ña fa. Mm-hmm. Euh, sëñ Alaaji sëñ Alaaji Njaay ba léegi moom jamono bi moom moo fa nekk di dundal dëkk ba. Mm-hmm. waaye mu sanc dëkk boobu sance ko nag ni Sëriñ Tuubaa daan sance dëkk maanaam sanc ko ci xam-xam. Mm-hmm. ndax comme ni ma ko waxee sànq dëkk bu mu mas a sanc dafa daan daf ko daan sancaale ak daara. ak daara ndax foofu moom xam-xam foofu la ko tegoon. xam nga bu fekkee yàlla dafa dogal nga juddu ci askanu Njare. mu nekk askanu xam-xam nekk askanu jaamu yàlla nekk askan askan woo xam ne ay gor lañ. Mhm. yow it bu fekkee da ngaa ñëw di dundal diine maanaam day day war nag bu it nga boole waale ci wàllu xam-xam. xam-xam damaa jëlale bi ni mu ko fonke woon. waaye it maanaam euh, askan wi mu bokk moom loolu bokk na ci li tax mu mu mu gënoon a sawar wala mu gënoon a fonk xam-xam. Mhm. bi mu sancee dëkk boobu nekk fa nag di jaamu yàlla ak di liggéey waa waa waa Biram Boodel xam naa maanaam Biram Boodel bu ñu ko waxee benn dëkk la bu nekk ci wet googu wetu njàmbur la ba léegi. Mhm. bi ñëwee jéblu si ci moom gis ne kat moom fi fi mu wax dëgg yàlla mbooloo mi ñu ngi ko fi fekk si tool yi xat na. Mhm. war naa mën a soxla fu gën a yaatu. fu gën a yaatu mu nekk. Mhm. ñu sàkkuwaat ci moom ne ko boo bëggee de suñ dëkk ba am na suuf su fa nekk soo xam ne mënees na la koo jox nga boole ko ci say tool. Euh, mu rafetlu xalaat boobu loolu ndax fekkoon na mu nekk ci xelam. ci la jóg nag dem ci ñoom bañ demee euh, wax nañ ne toog na fa fukki fan ak juróom ci këruk ab taalu taalibeem mhm. euh, mooy te fukki fan ak juróom yooyu ci lañ gor àll ba nga xam ne si ne moom la fa am te mooy daarul xadim mhm. toolam bo dëkkam boobu mu ngi koy sanc daarul xadim bi dem boo de la la tudd la tudd mhm. euh, fa la nekk nag moom kasaalik nekk faaku njabootam boo ku ci mel ne sëñ Abdou Faty Mballo ak ku ñuy wax sëñ Abdou Karim Ndiaye ci ay njabootam lañ ba mu fay jógee di sanc Touba Ndiaye ñoom ñaar la fa bàyyi ñu yore njàng ñu maanaam ñu yar continuer yar ba continuer njàngale ma waaye it continuer liggéey ba ci ci ca tool yi ak ak ak lu ca jëm. Mhm. kon kazalik maanaam euh, ni mu sàncee woon daaru salaam rek noonu la sàncee daaru daaru daaru daaru xadim. Mhm. Euh, ginnaaw bi nag ci la sànc dëkkam bi mujj bi nga xamante ne fa lay génn àddina muy euh, muy Touba Ndiaye. Mhm. ci ndigalu sëriñ bi sëriñ bi ci moom moo ko jox tur yi sax ne ko na nga ko tuddee nang ko tuddee Touba Ndiaye. kon kadaalika bi mu sancee Touba Ndiaye it diir ba mu fa sax yàggut waaye lam nekk woon ci yeneen ñaari dëkk rek loolu la fa nekkee mooy fexe ba sëriñ bi comme dafa ñëwoon di yeesal diine. Mhm. mais indi système mu boppam ci yeesal diine. ndax dañu da ci jamono boobu dañoo nekkoon ci benn contexte boo xam ne ay jixeet moo xewoon. Mhm. xeex ak xeex ak colon yi fii ak xeexak ak buur yi fee nangam nangam mais ñoom suñ borom dimbali woon na leen. surtout surtout euh, zone boobu mooy côté koy wàllu wàllu njare gi wala wàllu njàmbur gi. suñ borom dimbali woon na leen ba yooyu ñoom mosuñ cee bokk. maanaam buur mosul jóge fenn di ñëw di woon song wala colon yi di leen di leen kii xëy na dañ koo teel rek régler ci seen ay euh, bagages comme niñ koy comme niñ koy waxee ci seen bagage njare njare ndax am nañ dëkk boo xam ne euh, net dëkk mel na njare Dakar. maanaam àggoon nañ ci xeex gi ñu doon xeex takk maanaam boroom tenue yi. Mhm. borom tenue bu ñu ko waxee mooy colon yeeg yeneen yi yeneen gars yi mooy képp ku fa mës dugg booy dellu ñu lay folli ba ba loolu siiwee nag kenn jaaratu fa. kenn du waaw léegi nag loolu nag euh, taw feex la ju leen suñ borom defaloon ba nga xam ne seen zone boobu min toqa amina la woon. Mhm. mooy mooy mooy zone zone zone bu ñu sécuriser. Mhm. moom la woon kon noonu la nekkee foofu ba sanc Touba Ndiaye ba yàlla dogal euh, mu mu mu génn àddina génn àddina ci ndigalul sëriñ bi. wala boog ci wuutu sëriñ bi ci ab dem. Mhm. ndax euh, comme niñ ko nettalee euh, dafa nekkoon ku sëriñ bi fonkoon lool. Mhm. waaye it mu am lu mu représenté woon ci sëriñ bi ba nga xam ne dem bi bu mu jotee te yàlla dogal yàlla dogal moom mu nekk fi mu mu mu mu wuutu ca sëriñ bi kon kooku ku amoon ay may la. ku suñ borom dimbali woon la mm-hmm. waaye boromum cër la ndax ku mën a wóotu koo xam ne si ne bu bu bu bu suñ borom amut sëriñ bi bu ko amee mu doy mm-hmm. kooku doy na sa kilifa la daal wallaay voilà kon ñu kiiwaat <laughs> la mm-hmm. euh, mel na ni euh, laaj bi tontu yi leer na euh, liñ ci mën a jànge rek ca mën ko cee xamee mooy sëñ Daaru Assane borom tawféex la ndax tawféex ji mooy lu ya sëñ ya Rasulullah sallallahu amutoon sëriñ Touba amu ko moom sëñ Daaru Assane am na ko ndax yonent bi waa Màkkaa ko génne woon waaye itam sëñ Daaru Assane wax nga ni dëkk bi mu njëkk sanc roy na sëñ Touba tuddee ko Daaru Salaam muy Daaru Salaam la njëkk am cib dëkk sëñ Daaru Assane itam Daaru Salaam la am ci dëkk nga gis dëkk boo xamante ni toog na ba xat ak ay nit dikk ni ko fii ñëwal mu tuddee ko Daaru Xaddim kon loolu laa ni sëriñ Touba sax amu ko woon ndax sëñ Touba ci jafe-jafe la dafa léppam bi mu ñëwee nag sëñ Daaru Assane gis na noflaay boobu nga xamante ni nit ñi def nañ ko ak ay mbokkam ak ak njabootam ñëpp bi ñëwee ñëpp nangul ko macha allah kon dañu ñëw ci beneen question bi rek ginnaaw bi nga xam nag gis nañ ni Serigne Darou Assane ab liggéeyam mat na njaboot gi wuutu nañ ko wuutu nañ ko ba gis nañ ki fi mujj di Serigne Mbacke Fassila yàlla na yàlla yokki leeram ca taas ñu ci barkeem sëñ Abdou Khadir toog toogaay boo xamante ni macha allah ñu gis tam saa su nekk tànki tey Serigne di gàcceel yu démb yi saa yu ne ak yeesal di gën a feeñ. ñu bëggoon ak xam rek majlis bi nga xamante ni bii majlisu usra bi euh, taxawal lan ngañ ci mën a leeral ak lan moo tax ak lan mooy seen jëmuwaay. waaw jërëjëf euh, mu mel ne da nga posé tamit beneen question bu am solo euh, majlisul usra buñ ko waxee ba kër sëñ Darou Assane dafa am nuñ ko structuré. Hmm. maanaam niñ ko structuré mooy dafa dafa séddali ko ci ay instance maanaam ci ay daayira hmm. wala boog ci ay kuréel. Mm-hmm. mën nañ ko tudde noonu euh, mu am kuréel bu mag boo xam ne mën nañ wax ne moo lëkkale ñëpp mu tudd jamaatu ahibaa Cheikh Xasan mm-hmm. nga xam ne taalibe yeeg sëriñ seeg soppe yeeg mboolem koo xam ne seeni daal yaa ngi béggee sëñ Daaru Xasan mm-hmm. ak foo mën a bokk maanaam ubbil nañ la buntuy daayira boobu ngir nga mën cee bokk euh, mu am beneen kuréel boo xam ne moom moo lëkkalewaat ci day mel ne rek benn banqaas lay nekk ci biir ahibaaw ndax moo lëkkale mbooleem sëti sëñ Daaru Xasan mhm. sëtaak sëtëk sëtaat ak ñëpp dañuy dugg ci groupe boobu ñu tuddee ko Minanu Baaxil Xadim mhm. euh, mu am nag benn kuréel boo xam ne moom mooy coiffé yooyu mhm. Minanu Baaxil Xadim ak ahibaaw nekk nag entre ci diggante euh, kilifa di kilifa yi. Hmm. te ñoo am ñu am seen kuréel boo xam ne majlisu suyuux lañ ko tuddee. majlisu suyuux muy conseil supérieur wala conseil suprême. Hmm. moom lañ ko tuddee. Euh, waaye mu am kuréel majlis bi nekk nag ci diggante conseil supérieur bi. Hmm. nga xam ne mu buñ ko waxee conseil supérieur buñ ko waxee mooy xalif bi ak. yeneen xulafaay yeneen xalif yi. majlis bi leen boole. loolu lañ tuddee conseil supérieur. comme ñoom ñoo jiite kër gi. mais suñ borom mooy leen sawaruk di doxal. mayu leen sawaruk di di di woote ay réunion ak di mm-hmm. dox di dem ci yenn yi dëgg léegi nag ñu sakk nag benn majlis boo xam ne moom moo leen di uut ci loolu mm-hmm. loolu mooy majlisul usra bii nii nga xam ne majlis la boo xam ne rôlam du lenn lu fexe ba euh, fexe ba li nga xam ne suñu way juree ñoom ñoo ko war a dox muy mm-hmm. xulafaa yi ñoom ñoo ko war a dox euh, ñoom ñu wuutu leen ci di leen ci doxal moo xam luñ leen sant la ngir ñu ngir ngir ñu def ko wala boog loo xam ne ñoom dañoo toog ba yëg ne lii lu war a am ci kër gi la. Mm-hmm. wala boog loo xam ne dañ leen ko dañ leen koy junj maanaam yeneen instance yi nekk ci kër gi moo xam ne nu baaxaat mi la wala ay baaw moom moo toog ba gis am lu mu gis jàpp ne alerte la war na cee war na mat la war na cee dox. Mm-hmm. mu sàkku ci ñoom ngir ñu dox ko. kon bu ñu wax majlis bi li ko tax a jóg du lenn lu liggéeyal kër Sëñ Daaru Xasan mm-hmm. mais fexe ba yóbbu kër sëñ Daaru Xasan ci beneen dimension. Mm. ci ci beneen xar kanam boo xam ne si ne euh, maanaam am na foo ko suñu way juru yóbbu mais ñu fexe ba yóbbu ko feneen foo xam ne si ne fu gën a fu gën a fu gën a euh, fuñ gën a ràññee lay nekk. Mm. waaw daanaka loolu mooy mooy taxawaaru majlis bi. macha allah bu ko defee. Mm. Euh, comme ni ma ko waxee sànq rôle am mooy coiffé wala bokk lëkkale. lëkkale mbooleem instance yi nga xam ne dañoo nekk ci biir kër gi. te bu ñu waxee instance yooyu ay baaw da ci dugg. bu ñu waxee instance yooyu. mi no baa xarim da ci dugg waaye bu ñu waxee instance yooyu it li ñu tuddee magistrat yoo wala conseil supérieur bi da ci da ci da ci da dugg mhm. kon loolu mooy loolu mooy rôlam muy mu am liggéey yu am solo yu muy def nag di ko liggéey ak jamaatu baaw mhm. yaakaar naa lii ñuy def nii rek ci la bokk dëgg euh, ak ak ak ak ak yeneen liggéey yoo xam ne xam naa dañ koy def ci ginnaaw moo xam lu jëm ci màggal gi la moo xam yu jëm ci yeneen ndaje yi nga xam ne si ne ñi nga am ci kër gi la wala mhm. yeneen yu mu mën a doon moo xam ay la yu jógee feneen fu mu en tout cas lépp luy jóge ci biti mm-hmm. jëm si ci kër Sëñ Daaru Xasan majlis bi moom moo koy traité xool ba xam ci ñan la koy ci yan loxo la koy teg loxo loxo majlis bi loxo euh, ahibaaw la koy teg wala mm-hmm. loxo menanu la koy teg mm-hmm. wala boog day nekk lu jar yéegal ci majlis suyuux bi bu fekkee en tout cas lu ci mën a lu ci mën a dem daal majlis bi moom mooy décider lu mel lu mel noonu ginnaaw bu ko càmbaree ba pare waaw xam naa macha allah yàlla na leen kër yëpp dégg yoonu murid yëpp dégg leen ci signal bi nga xamante ni Euh, euh, signalé ngeen ko muy signal bu foor boo xamante ni ci bennoo ak ak lëkkale rek ci la jëm. kon euh, waxtuwaa ñuy xoj bu baax fi mu toll nii. buur jëm ci jeex. waaye mi na nag seen taxawaay. ndax wax nga ahibaawu Cheikh assan muy lu fi yàgg loo xamante ni moom ñëpp a ngi ci. waaye nag bii di sët yi ñoom seen taxawaay ci biir kër sëñ Daaru assan ak màggal gi. waaw sët seen taxawaay wutewut ak taxawaayu seeni wayjur. Mm-hmm. ndax. Euh, Minanu Baa Xadim yàgg na fi yàgg na fay sosu mu am ay taxawaay yu am solo yoo xam si ne daf koy def ci biir kër gi lu jëm ci day mel ne moom itam laata xëy na majlis bi bi mu sosoo ak léegi euh, tax na tax na tax na maanaam gisatuñ bu baax a baax a baax taxawaay Minanu mm-hmm. waaye taxawaay yu majlis bi di taxaw yu ci bari Minanu moom moo ko doon taxawee mm-hmm. euh, ñu mën cee tudd rek xëy na li ci gën a fes mooy maanaam màggalu Louvain gi saa yu ñëwee. Mhm. am na bés boo xam ne si ne moom la ñuy waajalee màggal gi bu ñëwee suba la. waaw te muy benn cérémonie officielle boo xam ne. cérémonie boobu rek bu ci màggal gi doyoon ci cérémonie day doy sëkk. doy na sëkk macha allah. parce que maanaam lim ci baaxoo def mooy ginnaaw moom dafa lëkkale set ak sëtaati sa njaaru xasan yi. Mhm. Euh, moom dafa dafa farataaloon ci bu yàgg farataaloon di def benn conférence boo xam ne. at mu jot daf koy def di ko fàttali di di ci fàttali mbokki jullit yi di ci fàttali mbokki taalibe yi seen diine. Mhm. waaye seen dund ci àddina. Mhm. ba ren jii ba ñu seetloo rek euh, ñu tànn ñoom thème bu am solo. mu mhm. mu ñu tuddee ko ahamiyatu tarbiya wa taalim fii muwaajahatil mustajaddaat maanaam xam-xam ak yar njariñ li mu am ci jàn jànkonteel ak xewit yi. mooy yu yu bees yi xew. ku ne xam ne ne àddina ci ay xewit la la ba lay lay dund. Mhm. à chaque jour ak liy xew. léegi nag xam-xam ak yar ban taxawaay la war a am ci ba maanaam fexe ba euh, yu xew yooyu di xew. Mhm. duñ mën a changer identité wu identité wu nit ñi. Mhm. maanaam euh, loolu mooy loolu mooy mooy thème bi. Euh, Minanul Baaqil Xadim nag du comme comme ni ma ko waxee rek daanaka mën nañu wax ne taxawaayu seeni waajur la ñu am ndax. Euh, fan yii rek bu ngeen seetloo bu yàggul dara am na benn euh, bés bu ñu tuddee woon sëñ Daaru Xasan mhm. bi yàlla dogalee bés boobu ñëw euh, xalif bi maanaam bés boobu ci seen loxo la ko tegoon ngir ñoom ñu coordonné ko mhm. ànd ci ak majlis bi ànd ci ak waa jamaatu ahibaaw bu ko defee ñu dem wuutu leen ci it maanaam teewal leen fa mhm. te ñu def ko defin wu rafet kon Minanu Kazaalik benn structure la bu nekk ci biir ci biir ci biir ci biir Daaru Ndiaye boo xam ne li ko taxaw a du lenn lu dut fexe ba njabootu sëñ Daaru Asan gi xamante fexe ba njabootu sëñ Daaru Asan gi bennoo waaye fexe ba it maanaam ñu ñu yëkkateendoo di di di di tegandoo fexe ba yóbbu ba yóbbu kër gi ci ci moom itam ci beneen xar kanam. Mm. ak ci beneen beneen beneen dimension. bokk na ci li tax ñu ne baa Xadim jóg. macha allah euh, kon fi ñuy tëjee yow rek. Mm-hmm. muy benn poñ bi ñu desee woon. Mm-hmm. mooy euh, taxawaay bi nga xam nag am ngeen ko ci màggal ren gi ci réaliser benn documentaire. waaye euh, taxawal benn livre boo xam da ngeen koy génne euh, jëmale ko ci bës bi euh, ak taxawaay beeg sëñ Daaru Asan ak njabootam lan ngañ ci leeral ci tënk rek ndax waxtu jeex na tàkk gars yi signalé nañ ma ko. voilà xam naa documentaire bi ak ak ak kii bi documentaire ak ak livre bi. Mhm. programme la boo xam ne mun na wax ne biñ ko tàmbaleeg léegi yàgg na yàggut. Mhm. ci ay quelques mois la toll. waaye tënkuñu ko ci màggal gi nag. Mm-hmm. dañu incha allah comme comme li ñu tuddee travail scientifique la. Mm-hmm. liggéeyu xam-xam la. dañ ciy xaw a jël suñu temps bu baax. dëgg ba nga xam ne eh, bu ñu bu ñuy génnee naan lii lañ gësu ci sëñ Darou Xassane wala ñu réaliser ab documentaire ne bii documentaire bi la réaliser ci sëñ Darou Xassane mm-hmm. dana nekk lu scientifique. dana nekk loo xam ne si ne dana am matière scientifique. mooy dana xam-xam dana ci feeñ. kon loolu moo tax documentaire la boo xam ne boo am solo la dara tënk ko nag lu dut ku mel ne sëñ Darou Hassane bi mu fi jógee dafa yàgg mhm. yàlla dogal ñu ko fi wuutu am nañ amoon nañ yeneen priorité yu dut gëstu ci sëñ Darou Hassane mhm. ñun nag ñu ñëw ngir jéem a dabaatal loolu mais bu ñu koy dabaatal it du ñu am rek ci bind ko parce que bind baax na mais bind dafa am kuy liir mhm. mais dañuy jëfandikoowaat yeneen jumtukaay yi nga xamante ne moo gën a jege askan wi te mooy ay documentaire nga xam ne xale bi toll nii mun na ko màggale nga xam ne xale bi balaa muy am 10 ans sax mun na la hmm. nettali histoire sëñ Darou Hassane ci lan mooy ci documentaire boo xam ne si ne seetaan na ko hmm. donc mu euh, majlis bi di ci di ci di ci di ci liggéey wala mën nañu wax ne di coordonné liggéey boobu hmm. parce que idée boo xam ne ci jamaatu ahibaaw la la la la la déparé majlis bi ànd ci ak ñoom di leen ci di leen ci di leen ci coor di ci coordonné euh, bay fi mu ne ñu ngi ci liggéey liggéey am solo ba xam naa bu ñu weesoo màggal gi incha allah Euh, am na ay yenn yenn yenn yenn visite yu ñu bëgg a def ci yeneen ci ci ay dëkk. Mhm. ngir dem gëstu ji ko ñi nga xam se ne jàpp foofu fi nga xam ne jàpp nañ ne war nañ faa mën a amee dara ci xam-xam euh, ñu ñu ñu ñu dem foofu ànd ak équipe bi nga xam ne si ne ñoom ñooy réaliser documentaire bi. Mhm. te Moustapha Guèye may jiite jiite équipe boobu. yaakaar naa bu paree dana nekk liggéey bu am solo incha allah. macha allah macha allah jërëjëf. jërëjëf waaw di sant di gërëm di di am contentement bu baax ci liggéey bu mel nii. parce que mën nañu wax ne lii innovation la daal. Mhm. liggéey bu ama am solo la. vraiment euh, di defal ay plateau plateau ngir di waajal bésub sëñ Darou Assane. Mhm. dama koy wax toujours ne. àddina àddina bi yëpp ci communication lañ rawante. dëgg gis koo xam ne si ne lam yor mbooloo mam yor mën nañu wax ne du dara. par mhm. rapport ak mbooloo moom kër sëñ Darou Assane. la mais fexe nañ ba am am li ñu naan communication de boom boo xam ne mooy. bu communiqué jotee dañuy communiqué ba mel ne yoonu murid wépp ñoo mhm. te loolu nag yaakaar naa bu dee ci ay moyen ëpp ñu ko kër Sëñ Jaaro Xasan bu dee ay technique ëpp ñu ko kër Sëñ Jaaro Xasan mais lan la rek volonté moo volonté bi moom moo fi nekk donc te ni ma gisee lii nii dafa mel ne volonté bi am na mhm. dañ leen ci sant bu baax di leen gërëm di sant mboole mbokk yi nga xam ne si ne ñoom ñoo taxaw ba lii am di jégguluwaat bu baax ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Modou Ndiaye moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Ndiaye ñi ngi lay sant bu baax ci kàddu yi ak leeral yu am solo yi kon mbokk yi lii lañ leen indi loon ci jëmm ju tedd ji di Serigne Darou Assane ak taxawaay bi nga xam ni majlisul usra bi ñu ngi koy taxaw di coordonné njabootu Serigne Darou Assane gi yëpp euh, ci ndigalal Serigne Abdoul Khadir Ndiaye di sant bu baax itam mbooleem commission yi rawatina commission communication bi nga xamante ni palaato yi ñu def yëpp ñoo koy coordonné di ko saytu ak mboolem techniciens yi nga xamante ni ñoom lañu àndaloon ci liggéey bi ak caméraman yi ci seen taxawaay mat am solo trop ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di fàttali màggal gi le 20 janvier incha allahu rabbi fii ci Daaru Ndiaye le 19 di conférence su sëdi ni ko sëriñ bi waxee léegi mi nenu baaxel xadim sant nañ ñëpp gërëm ñëpp ndokkeel ñëpp ñaanal ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.